kontaan naa bu baax euh, si Sahel euh, network euh, TV tey nag fu mu nekk nii jógee nañ Fitzgerald Allen Street si Johnson bi gis ngeen fa suma nijaay kàddu yu baax yim ko teral ñëw nañ nag si Fitzgerald ak Grand Street fi nga xamee ne right now liggéey baa ngee go on gis ngeen pax bi ni mel waaye benn tey olof jaay daf ne wéy di gis bokkut gis ngeen pax bi ni mel fii balaa ñoo wax 2021 élection 2021 muy jot bu soobee yàlla boo ñëwee fii soo fi taxawee tey euh, time boobu nga ne ah, fii lañ taxawoon di am interview ah doo ko di yëpp si national development plan ni président Barrow la bokka gis ngeen ah, pax bi ni mel fu mu nekk nii ñu ngi laa woon liggéey baa ngee go on waaye ah, am naa fi koo xam ne tamit ndongo Banjul la. wa Banjul la momi tamit mu ñew ma laaj ko ah, young boy ah, na nga def. ma ngi ni rek sante yalla Mr Daba. Ah, naka nga tuda ak fan nga dekk ci bir Banjul ban koñ nga dekk ak ban nomba. wa man ma ngi tuda Abdoulaye Souare ma ngi dekk 36 Stanley Street fofu la judo fofu la yero way right now ma ngi reside in Lancaster 73. Abdoulaye. naka nga dundee Grand Street léegi ak ah, liggéey bi ni moo demee nii ak li ñoo wax si président baro naan projet bi nekk Banjul du projet gi président baro yow naka nga ko dundee as a young ah, man young boy ah, from from Banjul naka nga ko dundee. waaw jërëjëf Dahaba loolu moom question bi moom kontaan naa si trop because ñun ku xooloon Banjul démba ak Banjul tey maanaam différence mu ngi fa différence yi mooy lan fi jaral fii yoo xam nga loolu soo fi daan ñëw mhm. especially when it come to time Christmas mhm. fii daf daan fees ba nga xam ne sax a doo mun a dox yaa mën a saan mhm. léegi-léeg da ngaa da ngaa mistake sax dox duga duga si daanu mhm. am na si ñoo xam ne sax seen tàggat dañ see mujjee dama gaañu si mhm. waaye léegi alhamdulilahi rabbil alamin mun naa wax loolu président Adama Barrow ñëw na ciiñ na yëpp everything because soo bàyyi xel am na Adama Barrow moo toog mu ne Banjul moom kenn du ko wax afi problème mi Banjul comme 20 years dëkk na Banjul xam na Banjul in and out fii la mun naa ne life lifetime am yëpp fii la ko defee so dafa mel ne promise bu mu promise woon waa Banjul def na ko. mun naa ne dafa gudd 100 percent but let's say let's say 75 na ko in Banjul. tali macha allah. Adama Barrow moom kenn amul dara lu mu ko mun a wax. de di ko ne ko waaye leneen tam luñ bëgg mu gën a yooka. Banjul ñun doyalaguñ. doyalaguñ de. pareegut ak yéen de. ah loolu nga foog de. pareegut ak yéen. Adama Barrow dafa door rek. waaye pareegut ak yéen. pareegut ak yéen de bu soobee yàlla incha allahu rabi di ngeen toog baanjul ñi génnoon Banjul dem Kombo ngir xataayi Banjul wallahi dinañ bu ko dellu siwaat Banjul te duñ am place réewi Gambia àddina bi yëpp lay waxantool ngeen man la seen xarit seen mbokk Dahaba National People's Party Dahaba mu président Adama Barrow teg leen seen baaraam man la ak seen ah, télévision bi nga xam ne moo nekk Gambia télévision bi nga xam ne nay leer rek la nekkee muy Sahel network TV bi nga xam ne mu si Gambia te doomi Gambian si ñoo ko moom teg leen seen baaraam ñu ngee ñëw jërëjëf.